asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki ami internet bu association taxawu ñu wéré di TV maa ngi leen di nuyu te di leen ziare yéen ñëpp di am mbégte ak cofeel ak bànneex ci abone yi nga xamante ni ñoo bokk ci chaîne YouTube bu an taxawu ñu wéré di TV di leen béggee bu baax a baax tey nag ñëw nañ fii ci diwaanu Tëngéej képp koo xamante ni xam-xamam màcc na jëm ci feebaru xel wala mu nekk bénévole wala mu nekk koo xamante ni jël na dundam gépp jeexal ko ci jaamu yàlla ci jaamam ñi ñun dinañu la fëgg ndax ànd taxawu ñi wéradi lañ wax kon képp kuy nekk ci aajo ñi wéradi yaakaar naa kooku noonu war nañ koo mën a gëstu dem xool ko xool na mu toogee na muy liggéeyee fii ñu wan ginnaaw moo di delloosi delloosi nekk fii ci diwaanu Tëngéej boo rombee terminus numéro quinze yaa ngi romb benn pont ci ruq pont bi ngay jaar ci suuf ñëw fii nga xamante ni moom moo di delloosi delloosi ñan ñoo dem ba ñu war leen a delloosi ñan ñoo fi jógee bañ war leen a delloo si loolu bu ñu àggee ci biir daañu ko xam ay ndaw yoo xamante ni tojuñu ay kaar yàquñu seen réew waaye dañoo nekk ay ndaw yu engagé wu bëgg liggéeyub yàlla bi di dimbali ñi nga xamante ni ñooy malaat mental yi ñu mag la ñuy dimbali wala ñu ndaw bu ñu àggee ci biir dinañ ko xam. fekk fi ki nga xamante ni mooy Seydouna Mohamed Sarr nekk jàmbaar nekk koo xamante ni malade mental yi rek ko ñor nañu àgg ci biir ànd ak Baye Assène moo kan lañ war a delloo si buñ eggee ci biir dañu xam kan moo dem bañ war koo delloosi si ànd taxawu ñu wéri di TV lu fi xew daañ leen ko yëgal tey Yacine Saaro gaa ñi yewul leen timis jot na kuy nelaw ba timis jotee xanaa xanaa nga mën a yeewoo asalaamaaleykum euh, man maa ngi tudd Ahmed Daf nekk fondateur ak directeur boo xam ne bu Delossi kër Serigne Babacar Kane Delossi baatu olof la comme ñu ko niñ koy déggee rek dañuy fexe ba nga xam ne ñii nii nga xam ne kat benn seen xel dafa dem ñeneen ñi nga xam ne génn seen kër yi ñeneen ñi nga xam ne kat xëy na askan bi dañu leen buddi dañ leen bàyyi. ñu fexe ba delluwaat leen ci biir kër yi fexe ba delluwaat leen ci biir famille fexe ba delluwaat leen suñu bu biir ndaxte dañoo bokk si ñun euh, delloo si nag yàgg na yàggul xëy na tur bi bi moo yàggul mais acte yu ñuy posé euh, ëpp ëppi na ay fukki dem parce lii tamit lii euh, dañ ko yàgg nañ ko def mais si defin boo xam ne xëy na mel woon nii demoon la rek si mbedd bi soo kis waxtaan ak ñoom may lekk mais ba ñu demee ba am na période boo xam ne nag il fallait que ku nek yaangi ngi uuf sa njaboot surtout moy debi koy ba muy soog a dugg ni ñu naan resté seebu resté vous ah kuy tok nak sa kër dafee nga am sa euh te ñun suñu da am ñoo xamne ne seen kër mbedd bi la woon ñu ne deet ñun taw dañuy fexé ba def lu ne ba ñu mëna art aar suñu njaboot jox mën leen utal leen tamit seen keur ci kaw nonu lañ dem tok ak ki nga xamne muy le préfet du département ñu koy remercier le passage Serigne Babacar kan bañ ko waxé dès le lendemain mu motul ñu bërepp ñu commencé ay école nak jël nga xam ne ka amatul lon ken ku nek ci mbir jël ñep ñu nekkan ndox ñom jek jek école bobu ñom ñuy tigi ñu demaat benen école ba yalla def tay ji ñu nekk fi ni bërëb bi dafa nekk bërëb bo xamne euh amul doomu arme lu mu fi fay 1 franc bërëbu këru ñep la këru euh, ki nga xamne kat xeyna na say njabot ta fami peut-être bay nañ la nga dem ci pedd bi këru ki nga xamne da nga ré sa njabooti la këru ki nga xam ne kat danga amul fenn foone rawatina këru ñi nga xam ne kat nit ñi dañ leen euh, toppale ñi nga xam ne ñoo am yenn feebaru xel soo gisee ñu bëri dañuy faral di naan centre dañu bëgguñu ñu naan centre ñun li ñu bëgg mooy ni ñu naan kër la parce que kër la comme yeneen kër ko ni ñu ko gisee euh, li am si kër yi rek moom mooy am fii maintenant procédure fii ñii di fi nekk la majeure partie euh, dans la rue la jóge euh, du ñu nangu sax kenn jël doomam indil ñu ko bëggoon ñu ko fi bàyyi na sauf mën nañ la nangul mu indi mu yendu fii mais yenn heure yi nga jël ko mu yóbbu sa kër mais ñi fi nekk ñi président ñëpp mooy ñi nga xam ne peut-être dans la rue lañ leen jëlee su nekkee par exemple dañu gis ne kat mbedd bi nga dëkkoon famille ndaxte dañoo gëm ni mbedd du place kenn rawatina ku amee jàngoro rawatina ku am jàngoro laago boo xam ne laago xel la moo waral ñu teg euh, delloosi bii nii fexe ba nga xam ne euh, nit façon jàngoro bi nga am rawatina jàngoro xel quoi que gis ni Sénégal àdduna façon jàngoro bu ne mu ngi fi te nit ñi ko amee ñu ngi dund ak seen jàngoro Tay am na dañu amé dañu amé cancer ñu ngi dundax cancer tay ñi amé sibru ñu ngi dundax sibru ñi amé diabète ñu ngi dundax diabète donc pourquoi pas nit mëna am jangoro xel te waru mën jangor khal. ak il suffit uniquement ñu jangal ko xamal ko talé ko wan ko nang nga mëna a ak sa jangoro lolu non moy bërëb bi li na lu ci ëpp bu njëkk bi nak moy fexé ba nga xamné ñu le sourire ñu koy mën a ne ñuy content di ré ndaxte xëy na xel lañu ñaan ñi am mais febru xel ak febru xol bokul mën nañu fexe mais am nañu ay xol donc nañu fexe ba xam ne saa su ne ñu toog ñu mën a que ñoom ñu ñu war a bégal lañ ñu ñu war a bégal ndax lan li li leen dal teguñu ko seen bopp loo xam ne dafa wàcce seen kaw te ni mu wàccee seen kaw seen particularité mooy que ni seen jàngoro mooyu leen ñu mën a taxawal seen bopp mën a am dara lu leen naxari ñu taxaw wax ko mooyu leen tamit ñu am seen axas seen yelef war ko laaj ñëw taxaw di ko laaj parce que seen jàngoro mooyu leen loolu donc ñoom dafa laaj kat nit ñu ñëw taxaw euh, taxawu leen jàppale leen beneen bi mooy ñu si bëri si ñoom dañuy boole ñaari laago yi mooy laago si yaram bi ak laago si xel ku boole yooyu tamit nga war ko nga ne da koy bàyyi moom kase ak boppam mënul ne parce que ñoom li ñuy naan tubaab li naan dañoo dépendant donc il faut moom koo xam ne ngay taxaw di leen assister di leen jàppale ni ngay amee sa kër liir bu ndaw bi soog a judd doo ko bàyyi moom muy defal ba il faut yaa koy defal lu bëri wala ni sa kër toog ba gis sa waajur mu am yenn at yi mënutul defal yenn yi boppam yow nga nekk di ko defal ñoom tamit xëy na Euh, seen dund yu bari duñ ko mën a defal seen bopp foog nga leen koy defal wala ngeen koy jàngal naax na lañ koy defee euh, bërëb bi sànq li ma ko waxee euh, tout est gratuit fii nit ñi dañ fi nous fii lañ dëkk fii la ñuy ndékkee fii la ñuy añee fii la ñuy reere feet xewee fii lañ koy defee ku si feebar ñu war dem hôpital gën a gën a dem hôpital fii ñi fi nekk nii actuellement xam laa képp koo si gis am na do am na am na dossier psychiatrique non seulement feebaru yaram ñu koy ñu ngi koy topp a feebaru xel aussi tamit ñu ñu ngi ñu koy top donc suñu kër la c'est une famille euh, famille ño famille bo xamne kat ñi fi nek ñepp ak ñi nek ci mbedd bi ak képp ko xamne ne suba nga fi wara a ñepp ku fi yexi si rek sa kër la lolu dal moy euh, moy moy moy delo ci en gros lolu lañ nek di def di ko def ngir yalla rek tax di ko def xamne ne tamit suñu waref la di ko def parce que suñu waref la di ko def parce que suñu waref la suñu waref parce que bu yalla ji moy xéer nit si dara té dañu gëm ni nit koo munti koo munti doon suñ la wax fa wàccee si àdduna danga nga am benn mission boo war a mëne te boobu mooy avant tout fexe ba nga xam ne doomu yàlla li mu gën a bëgg muy doomu aadama nga fexe ba mu mën a euh, xool nan nga leen di mën a jàppale te jàppale doomu aadama moom lay faral di wax euh, wala euh, amal njëriñ fi askan soxlawul xaar état soxlawul xaar nekk millionnaire wala milliardaire soxlawul xaar jàng ba am xam-xam soxlawul jël xaar ba ba jàng métier bu mën yenn yi lan la rek la wo ngay xam sa wareef am pass pass bi taxaw ci nek ci man abdou euh, lan nga ñu mëna wax ci li ngay jaay damay seet damay seet rek pour toogaay kessi baaxul moo tax ma jënd def ay affaire la yooyu won nit yi pour jaay pour am ci dara lan ak lan ngay jaay ay kida ay kototis ay setu mhm. ay peñi magi ay boros waaw ay yene yeneen sax xam nga ambulance yi dafa diis moo tax mënoo jënd yëpp dangay def ay jënd ay tuuti tuuti rek nga jagase nga dem wóori après bi ci kanam nga ñëwaat nga noppil tuuti bu ci kanam bi ci kanam nga dem nga tuunaat encore pour toogaay kese rek nii rek baaxul waaw li nga tool li nga gis nii nii la amul coow amul fitina amul dara kesi def ay affaire caay nii def ay yeneen yeneen business yi nii rek amul xuloo amul dala ah, avant may eh, sori ci wax ji damay jaajëfal Mouhamad mi di daaf parce que li tax ma koy jaajëfal mooy dafa sumb benn mbir boo xam ne mbir bu noble la mbir boo xam ne du ñëpp ñoo ko mën man damay wax ne man mënuma ko parce que moom daf ma integre ci mbir yi. ma ñew pour indi en plus sama ñew sama téway nak ci bërëb bi ben mbir moko waral euh, dama gis né nak associé bi ma associé si centre bi daf ma jappalé pour ma mëna am am euh, dimbal ci sama digënté ak sama borom parce que man li jaamu yalla pour man néna jaamu yalla gënu ko reuy donc dama koy wax euh, chapeau centre bi nak ñun suñu ñew fi

mu ne du ma deñ di dimbali sama jaam tant que sama jaam bi mu ngi fexe di jàppale mbokk jullitam kon dama wax ne Ahmad mi tamit euh, bu ko kenn jàppale wulee waxu sunu borom du nax du naax saay waaw parce que sunu borom moo ne ku def lu baax ma fekk se si lu baax loolu. waaw de delloo si euh, ma ba tur bi bu mu génnee léegi soo amee ñetti at si lay yem mais avant loolu na ko ñuy wax sànq ay euh, demoon la si mbedd bi joxe lekk mais temps yooyu. xalaatuñu woon ut utul ñu ko woon këyit utuñu woon da doon woon loo xam ne dafa formel lu informel la def ngir yàlla rek tax loo xam ne taxul kenn sax du xam beneen léegi euh, ñi si ne membre yi dèjà présent delloo si ñëpp si lañ bokk yow mii si nga bokk kenn kenn si la bokk parce que moom laay wax du mbiru Ahmed Daaf du mbiru bu Mouhamed Fall du mbiru sëñ Babacar du mbiru kenn mbiru askan mbiru ñëpp la parce que tamit euh, ñun ñi kenn xamul ak bés gi nañ demee suñ demee tam ñaan nañu yàlla kenn ku ñu dégg ku ñu indi donc delloo si ñëpp si lañ bokk xëy na ku nekk nag ak période bi nga xam ne yàlla peut-être si la lay xiir pour que nga ñëw wala yàlla si lay boole pour nga ñëw yow nga def si sa mission parce que bés gën a ñëw duñ fi nekkati am na ñeneen ñoo ñoom ñooy woyal mission bi donc membre yi noonu euh, noonu noonu la demee comme kii toog nii bu moom mooy moom mooy EDG bi en même temps aussi tamit euh, moom il est là du lundi au samedi il est là il journée bi du lundi au samedi mu ngi fi sëñ Babacar tamit c'est pareil patron moy jallo mu jallo mi tok mom moom la interview mom mom mom moy patron bi donc keur la bo xamne ne membre lañ ci maanaam euh, comme famille famille bu mak la daal képp koo mënta gis rek mo mu ngi si biir mmh. kon donc inshallah allah rabbi amna ñortu bu rafet ne euh centre euh, seigne babacar kan du am tanku ginnaaw inshallah allah rabbi euh, di wax rek ne jafé jafé yi comme ni mu ko souligner sank Euh, bëri na trop wax dëgg yàlla euh, si wàllu fànn bu nekk mais tamit euh, ku ko xamoon si temps yi si ginnaaw xamaat ko léegi di nga xam ne tamit li ma junj léegi rek kenn du def lu baax di am lu bon kon santaat yàlla bu baax tamit di wax ne centre bi comme ni ngeen ko gisee nii noonu lay demee am na si ñoo xam ne tey jii nii dañoo dem def benn visite seeti ji seen i waajur parce que tamit yàgg na gisante ak famille bi kon dina jaaru tamit ku si dem ba am tamit tan tuuti. am sant yàlla si say euh, si sa bopp dina jaadu tam nga dem defaat benn visite de proximité pour xamante waat ak euh, famille bi pour gën a miinante waat ak famille bi donc tamit euh, lu noble la comme li may wax rek chapeau laa koy wax ba pare tamit den jaajëfal parce que lii damay wax ne dañ ko war di wane si jamono ju nekk nit ñi xam tamit parce que bëri na ñoo xam ne dañu yaakaar ne fii nit ñi dañ fi ñëw di fo dañ fi ñëw pour di sukkandiku ci ay ay ay ay maigre moyen dañ fi ñëw pour dóor wala xeet yooyu noonu Eh, man ma ngi tuddu Bou mohammed Fall ma nek secrétaire général fi ci centre Delossi kër seigne Babacar euh di centre bo xamanteni ni eh, da fay accueillir ñi nga xamanteni euh manam dañu am retard mental manam sen sen xel dafa xaw dess après ñu ci def liggéey bu am solo d'abord Delossi dafa am ben aspect bo xamanteni ni nii dafay spécial da fay def li ñu owe socialisation socialisation boo dégué déggee moy dañuy won askan bi que ni ñi nga xamante ne dañu amee feebaru xel dañuy bokk société bi té war nañ mëna dund ak ñom comme ñi euh, nga xamante ñoo ñoom la nit ñi euh, amé yeneen fièvre yi di dundé ak nit ñi parce que nit amna fi diabète diabète nek fièvre bo xamante ni nii daa seet kenn du ko faj mais da ngay dund ak mom ci bir nit ñi benen moy nit da fay am sida et pourtant bu njëkk bu daan am sida dañ lay daw mais léegi tey science dem na ba toll foo xamante ne nii même soo amee sida dangay dund ak nit ñi waxatumal nag nga dem ba am li ñuy woowee feebaru xel tey lan moo lay wan ni kër sëñ Babacar Kane delloo si dafa am benn rôle bu am solo bu am solo bu muy joué mooy socialisation bi amul feneen foo xamante ne nii tey dañuy yëngu ci wàllum xel nga dem di ko fa fekk bu ñu waxee socialisation mooy da gis benn malade mu nekk ci biir centre delloo si dañ ko jàngal ana naka ngay euh, demee yónnante parce que ñoom ñi ngay gis nii yëpp tey képp koo fi euh, jël ne ko demal nga defal ma lii day dem def ko ñëw toogaat te loolu je parce que ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo nekk suñu biir kër yi am fa suñuy doom am fa suñuy rakka képp kuñ ci yónni même chose ngay def donc ñu nekk benn couche boo xamante nii dañ leen euh, maanaam stigmatisé dañ leen ber boddi leen Ameth nag à travers Delos yi dafay wane nii nit war na mën a dund ak malaadeem ba pare bokk ci société bi man li may ñaan euh, état bi bari na bariwul mooy lan mooy il faut communication bi par rapport ak santé mentale ñu gën ko vulgariser gën a boole seen i programme ci programme yi nga xamante ni tey mi ngi nekk au niveau du ministère de la santé santé mentale boo xoolee benn bés rek lañ koy jagleel ci année bi muy su ma jumulee 10 octobre te 10 octobre depuis Ameth ba mu tegee centre bi ba léegi dañ ko fiy célébrer képp ko xamanteni ni tay en tout cas ci biir tëngeej fii ni commencé nga di intéressé wu ci question santé mentale c'est grâce à Delosi té Delosi tay taxna ba en tout cas man mi wax ak yeen ni bien suma suma jëlé ñaari at ci ginnaw peut-être amon na yenen xalaat yi nga xamanteni sénégalais dañ ko doon dañ ko amon ci ñi nga xamanteni ni amé fièvre xel peut-être moy xébuma len won mais daan naa leen romb mais mënatuma ci rombu kenn euh, rombu ci mbédé mi té duma am sensibilité dañuy génn di leen jox ñuy lekk dañuy génn di leen jox ñuy naan te li si ëpp solo mooy mën nañ leen récupérer mën nañ leen récupérer boobu mooy lan tey jii ñun en tout cas delloo si am nañ ci ay cas te cas bi gën a patent mooy lii Abdou wax sànq Abdou dem na ba toolu benn maa boo xam te ni moom jàpp na ni toogaay amatul njëriñ as tuut bu mu am mu dem jënd ci ay mu dem jël ci ay yenn yenn yenn outils yu ndaw ne da koy jaay amel ñëw dooleel ko donc ça veut dire que tey jii nii am na ñeneen ñoo xamante ni tey ñu ngi ci mbedd mi te war nañ mën def li nga xamante ni tey Abdou loolu la jël décision pour def ko mais loolu day fekk tey ñu jàppale leen donc di invité waat état bi mu gën a responsable par rapport ak question santé bi parce que ñu ngi koy wax fii nii san euh, feebaru xel mën na jóge fu nekk te tey pour man toutes les graines ont été tey ba nga xamante ni malades yi tey war nañ fee gën a bari te donc pour anticiper loolu il faut ñu teg initiative yu mel nii ba nga xamante ni tey képp koo xam ne nii yàlla suñu borom nattoo na la nga am feebar boobu ñu mën la jël toppatoo la ba def la li nga xamante ni tey moom lañu def ñi nga xam tey ñoo nekk biir delloo si ba yàlla def ñu commencé di retrouver seen bopp ñenn ñi ñu ngi fi certes am na yeneen façon feebar yoo xamante ni nii peut-être mën nañ ne nekkuñu feebar buy wér mais au mooy sax am nañ euh, passion bi nga xamante ne nii am nañ amour bu leen permettre tey buñ nekkee euh, ñun ñëpp ci biir delloosi bi ñii ñi ngi ataaya ñii ñi ngi fo ñii ñi ngi kaf ñii ñi ngi te yaakaar naa ne tey doomu aadama ku ko defal loolu rek tey defal nga ko li nga xamante ni tey loolu la gën a bëgg donc euh, di di leen sant di leen gërëm ci ñëw. ñoom duñu duñu bëgg sax dem fen ñoom lépp loo mën def mën nañ ko def maintenant am na ñoo xam ne peut-être da leen di dab. ñooñu aussi dafa am ay kaayam dafa spécifique parce que su la dalee la majeure partie su la dalee moom la wax sànq famille yi première fois yi dinañ ci sawar jël yóbbu hôpital wala yóbbu si sëriñ mais su ñu demee quelque temps rek dañ koy jàppee comme si sibru maanaam soo demee quelque temps euh, wér na alhamdulilah wérul ñu commencé gis famille commencé di wàññeeku ndànk-ndànk ndànk-ndànk du leen jaral ci ndànk-ndànk ndànk-ndànk te nit ki seen traitement du benn fan du ñaari fan du benn weer du ñaari longue durée la il faut nga mën a suivre traitement bi ba ba mu jeex mais la mën a famille famille du leen ko jalal par la après wala sinon comme li ma wax sànq aussi ñi ñi amoon doole pour toppatoo leen jékki-jékki wàññeeku beneen bi mooy côté état côté les politiques sociales de l' ñi nga xam ne ñoo leen waroon mën a jàppale teg par exemple ku feebar ñu ko gaaw yóbbu la ah hôpital mën la toppatoo gars yi amu fi beneen bi euh, même pour nga yóbbu da ngay dugg euh, daa mel ni Tëngéej fi nga nekk nii euh, département bi alhamdulilah instant yi grâce à un psychiatre mu koy monsieur monsieur de euh, euh, wax na lu bëri si yéen lu baax moom mooy léegi chaque fin mois mooy ñëw di ñu di benn consultation mais département bi amu amoon psychiatre yeneen jafe la am na yenn yoo xam ne mën na nekk par exemple comme nit rek mën nga gis ni daanu da nga daanu rek daanu affaire affaire bi dikkali la nga nga ñëw am si feebar wala nga gis dara loo xam ne waroo ko gis am si trop affaire yi ñëw donc lii di ko mën ne cause yi dafa bëri te jommul kenn dafa mu dafa bëri trop te jommul kenn accident gis loo warul gis judduwaale ñi ñu naa par exemple fii tam ay ànd àndandoo ñu ngi koy wax fii euh, euh, euh, am na si ay mal formation si juddu donc bëri na li ko li ko war a indi mais li naa moo si ëpp solo lépp képp ku mu munti dal mën na dund ak nit ñi mu nekk buy wér ak bu dul wér il suffit que uniquement doomu aadama yi ñu mbokk yi de askan bi mën a am leneen nu mu leen di toppatoowee xam ne ñooñu kat suñu xësee ba dal am na loo xam ne mënul suñu ko seen bopp ñun ñoo ko mën si ñoom te aussi war yow ñun ñu siy taxaw comme drogue aussi tamit da koy da koy da koy indi muy kàddu solo yi nga xamante ni yëkkati nga ko jëm ci wàllu feebaru xel waaye rawatina nekkin bi nga xamante ni nekk ngeen ko fii ci diwaanu Tëngéej euh, añ reer ndékki dafa jafe ci ki am xel rawatina ki nga xamante ni. yaa ngi nekk ak moom àndul ak xelam fan ngeen di jëlee ay moyens yu ngeen dundalee malade mental waaw ah merci bon euh, pour, pour pour dire vrai tey tey xaw commencé na tane mais ay jamono c'était vraiment très dur parce que lenn lañ defoon suñu bopp du ñu tàllal loxo du ñu oote ndimbal mais suñu demee suñu demee ma xam ne suñu poos yi mënatuñu may ñu génnee pour jox leen pour man pour defal lii mën nañ jël suñu bool taalibe yi gënuñu dugg si kër yi saara añ saara reer saara añ saara reer ñëw indi leen ñu lekk parce que yàlla def na sëttale musuñu musuñu àgg foofu euh, añ dafa metti ndékki dafa reer ba pare fàtte nga si dara kër si xam ne nag sax ay kéema diwlin sax du dara gis nga affaire yu ndaw yu ñu xeeb ay omoox ma daal yu ñuy xeeb ay saabu wala tee di fóot ah ay euh, maanaam yenn détails yi nga xam ne ñooy am ñooy am si kër ndaxte ñoo gën a ma sax ceebar diwlin parce que ceebar diwlin mu nga jënd en gros benn yoon war nga suukar attaay attaay yi ñëwagul beneen bi mooy que ni seen euh, seen solin ak tamit luy mën a bégal seen xol yi maanaam wala leen yóbbu ay restaurant wala leen yóbbu par exemple jóge leen dëkk bi yóbbu leen beneen dëkk wala leen yóbbu ay plage wala leen yóbbu stade wala yóbbu feneen a feneen après nga war ñu war am aussi une alimentation variée ak alimentation bu baax mais yàlla bëri sutura bañ fi nekkee ba léegi sant yàlla bu baax a baax am nañ nag aussi surtout communauté bi ay temps nag bon sama copain bii toog kii ay euh, toog na plus de un an añul añul këram kii ngay nii plus de un an un yi plus fii lay ñëw man maa ko jékki-jékki arrêté xam ne yàlla mi ngi commencé leer man xam naa tamit xam nga xale ne chaque jour añam nga koy indi pendant plus de un an dafay metti mais aussi euh, am nañ ki nga xam ne mooy le préfet du département Koku amuñu fayam man ma dem ba ki ya de sala quelque année quelque temps mu le ma ko maa ko ñaan ngir yàlla matal nga sax fi mom lepp lu fuma baal nañ la bi la war def nga ko ba mm-hmm. comme je dis souvent nit euh, goré dafa bax ak tamit bañ abuser ci yenn yi ko ci so nekké ci jaamu yalla mu mm-hmm. woor ba nga nang fay ne fexel ba nga xam ne parce que sama papa loolu ma yag loolu ma yaree sa ñax na dem sa su ne sa poos na sey dem xam ne dara yombul mais euh, après ça am léegi maintenant commencé nañu kon am nañ euh, waa nañ jaale gi dañu jox saak lii gi dañu am léegi euh, diwlin pâte macaroni ah diwlin macaroni ak meew am naa ñu ma koy may sax sax fin du mois mais su loolu dépasse ko jeex ba léegi maintenant sama kër comme añ sama kër sama kër ba léegi di profité du nuyuwaale sama waa kër ak tamit sama soxna surtout sama yaay parce que tey chaque jour añ boobale chaque jour añ dafay jóge su ma toogee mu metti ba mu metti man su mettee ba metti am nga sama yaa samay feneen laay dem wala ma teel ko di yeewu fii parce que man fii laa dëkk fii laa fii laay fanaan fajar dem dem dem fekk dem fekk fekk sama yaay ñëw toog ñëw toog xam naa heure bu muy ndékki su ma ñëwee rek toog toog toog si wetam nii mu defar ne ma daal am naa ko nga yaay mënu ma lekk mënu ma dox ak njaboot gi lekkuñu nga gis ko mu jékki-jékki génnee yoo jox jox jox ma jox ma ma yóbbu donc man aw ma euh, fayu tamit sama waa mais mention spéciale au préfet Dioba waa kër tamit aw ma seen fay ba fi may waxee yow nii añ fa lay jóge sama soxna moom mooy togg la mos ba mooy togg reer yi chaque jour pratiquement xanaa yenn jour yi koy yërëm ne ko ne ko bàyyil dama ko yërëm am na am nañ fi aussi benn cuisinier wax ne professionnel lañ ah, koo xam rek la mën a togg la mooy kii toog suñu ginnaaw nii tamit waa ah, kay ndawal moom ah ndawal a togg des fois aussi yenn togg yi fii togg yi aussi fii lañ koy toggee añ parce que ay jamono dama doon togg fii añ ay jamono sant laa doon toggee añ mais toggaat ay jamono mu metti lool mu mujjee changé euh, sama kër dafa gérer yenn yi añ bi di ñëw euh, xam ni parce que dépense quotidienne dafa metti soo amee ceeb ak diwlin chaque dafa metti te tamit euh, loo xam ne dafa am chaque jour foog nga xool modèle boo xam ne day am continuité moo yenn yu bëri instant yi sama kër lay jógee lay ñëw am naa aussi tam fii sama mère boo xam ne aussi tam moom la lu ma am dama koy jox muy indaaleel bu mu may indaaleel bool comme ça au minimum euh, ñaar ba ñett des tamit ñenn ñi mun naa ji kenn ñëw indi bool askan bi aussi tamit des kenn jékki-jékki rek ñëw jaar fi euh, nuyu ñu am lu fi bàyyi si si si siyaar ñu siyaar bu baax a baax donc euh, fii daal demin bi noonu la na aussi ñu bëri ñoo xam ne actuellement nag ñu ngi commencé di si jàpp par rapport ay temps ay temps métti woon na trop mais jamono yi moom mu ngi commencé wax dëgg yàlla mu ngi commencé changé côté bu muy métti jamono ji rek bu muy metti lool lool sax muy ce sont les médicaments les médicaments moom ça coûte extrêmement cher te loolu du ñii rek fépp la si Sénégal il faudra que ñu jéem a xool ordre ordre des pharmaciens l'état xool na la ñuy mën a subventionné yenn médicaments yi soxla ñu ko ñu may mais nañu ko subventionné rek pour ñu yi pour mu gën a mën a oyof pour mu gën a mën a oyof rawatina loo xam ne dañ koy jënd lu mu dee des fois garab nañ ko jël deux fois ci weer bi dafa metti lool lool lool lool. lool

tay du ñi amna ño xamne ñu ngi seen biir kër yi fa lañ leen parce que su la famille euh, bon comme par exemple su sé famille bi sama dem gis kër gi famille bi ça va damay waxtaan ak famille bi su nekkee dañ xaw bañ mëna waxtana ñom comme fi may chaque deux jours may dem ci kër gi man may ñew ci kër gi toppatoo ko su yëngatoo man la ñuy ow ma ñew su waré sangu may ñew defar ko maintenant pour que euh, pour que mu mëna a seen biir kër parce que dama gëm ni la place d'un enfant c'est auprès de sa famille des aussi courir ñu ndil ma su ma la famille délo ko famille euh, accompagner aussi inter ñi ñu interné surtout ñi ñu interné à l'hôpital psychiatrique moo gën a bëri am na ñoo ne ñu bëri contre apa soit ñaari mbir am si la famille est prête euh, bon des fois su amul doole frais yëpp sax mën nañu ko gérer mais ñoom lañ gérer accompagnant bi a l'hôpital psychiatrique ñu yóbbu hôpital psychiatrique avec aussi l' accompagnement du préfet moo ñuy permettre euh, ñoom euh, comment arrêté àndax yóbbu yóbbu ko hôpital psychiatrique dañ ko yóbbu léegi yenn frais yi ñu fay ko fay bi accompagner su génnee aussi ñu topp suivi bi comme ba fi may wax ne am na ñoo xam ne ñu seen kër yi mais seen mais seen médicaments yi fii fii lay juge maanaam seen lii su jeexee dañuy ñëw ñu ñëw fay leen maintenant am na ñoo xam ne comme fii koo fi gis mu toog rek koo fi gis ñu neex rek dafa ko ñooñu instant yi fii mooy seen kër comme moom laay faral di wax actuellement xale fu munti doon waxuma Sénégal Afrique xale fu munti doon xale la ku gis mu nekk si mbedd bi pour la ñuy priorité yi ah fan yi parew soo ko indee ma def ko sama doom bi ma jur nombre bu muñti doon ay ay jamono ñep la woon mais sa yi instant yi euh, euh, ligue bi ngeen fi def amna solo lol tay yeen ngi porter vraiment le drapeau yeen porter vraiment le flambeau euh yeen ngi euh, poser la débat li c'est pour cela lay faral di wax ku len bëgg aider fexal ba nit ñi commencé ko waxtaan te yeen yéen a koy def un peu partout ci Sénégal donc yàlla na len yalla fay benen bi aussi di leen remercier wat muy doublement bi muy si si bi fi ci déplacement bi kon li may faral rek ñun ñun lañ dañoo néew nag ñi di si yëngu waaw mais nag ñun ñoo mën a jëmmat mbir mi ñun ñoo war a mën a fexe ba nga xam ne nit ñi ni ñuy gisee suñu jëm dañuy jox cër noonu lañ leen di joxee cër donc une fois de plus merci vraiment ko fii centre bi su su amee ginnaaw yàlla c'est grâce au préfet du département bërëb nii. suñu amé mom motax ñu am ko parce avant lycée ay école la woon yenen ak yenen donc sëñ Babacar kan mom sax lañ tuddé centre bi yalla nako yalla fay fak gis nañ ni muy taxawé ci couche la gis nañ aussi fu ko toll euh samay collaborateur ñëpp aussi di leen ci centre di leen di sant di gërëm sénégalais yëpp waa tëngeej ñi waa tëngeej wa aduna àdduna ndax té les messages de motivation de fleur et d'encouragement yima jot wax tamit nit nga am lu nga am lu ni ak li nga ñew di si jàpp yalla rek mo am seen fay yalla na len yalla fay fi may daanlee moy que ni delloo taxul ñuy wax mais suñuy wax dañuy waxal ñi nga xam lañ am fièvre xel nek si aduna té nit ñepp ñi té ñi nga xam kenn toppataw leen di ñaan aussi askan bi rek ñu fexé poser le débat ni ñuy togué di ci di waxtani ci yeneen mbir nañu fexé ba waxtani mbiru ñi di lancer appel à l'état mu xam ne ñun dañoo bokk si euh, askan bi xam ni aussi tamit ñii kat euh, lu bëri dafa war si ñoom ek état bi moo mën a faciliter yenn yi beneen bi te wax aussi pour que ñu jàppale les acteurs ñi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk ci santé mentale tey ay ànd taxu ñu wéradi ay des ay ñeneen ak ñeneen ñeneen ak ñeneen fexe ba nga xam ni seen expérience ñu ba bañ ko ñu fexe ba nga xam li ñu si xam a li ñu ci mën a nekk parce que fii dëkk bi y de des gars am nañ volonté bi bëgg nañ jàppale état bi rek moo war a teg les conditions pour mën leen jàppale aussi surtout ñun tam suñu sécurité ñun les acteurs communautaires parce que tey ñu bëri xamuñu mais lu ñuy def lu nekk mën nañu mën a ci xaj waxuma si côté ñi nga xam ne ñoom la ñuy jàppale de mais si côté ngu si côté leneen nax leneen parce que natt mën na ñëw fu ne te suñu yenn yi rek gars yi duñu xam lii wala lii wala lii wala lii wala laa dañ naa la ko yow da nekk di def lu baax ngir yàlla ngir ngir yàlla rek a tax donc état bi war nañu mën a war na mën a gëstu waa si côté boobu noonu état bi war na mën a gëstu aussi ñi am feebar xel pour les politiques sociales yi muy teg xam ne ñoom na lañ si mën a bénéficier wu di remercier une fois de plus euh, waa sama famille waa Tëngéej waa àdduna waa Sénégal di remercier ñëpp une fois de plus euh, Pape mention spéciale waaye grand grand bu bien nga yàlla na sa jàmm yokk Euh, yàlla na la yàlla aar euh, li nga bëgg si biir xol te mu nekk lu gën si yow yàlla na la ko yàlla boo buur bi defal ba ñu yàgg naa la suivre amul vidéo booy def wax ba pratiquement te duma ko xool parce que man santé mentale ku si nekk rek moom lay falax ma nga si nekkal mais récemment ba ñu bokkee formation non seulement dama gis beneen nit bu nekk si ginnaaw muy lan euh, nitu kase nit koo xam ne nitu jàmm ak salaam kafax ree la la xam et que sax nii sax nga mën a mel ku nekk si ñii ku nekk si ñii te mu dëgg si yow bàkki rasulaay ka ka fa ree nga mën xam xam te sox soxol iñaan wala bon mënu si ne ku si nekk rek nga ne yaa ngi si lii rek billaahi nekkoo si au fond xëy na peut-être da ngay nekk di wax rek si kaw donc jërëjëf yàlla na yàlla na yàlla fay di leen encouragé di leen wax fi ngeen teg seen tànk foofu la mission bi euh, santé mentale yàgg na am ñu si ne mais tey lu mun néew néew lu ñu mun ti wax ñu ngi commencé am avancement tuuti tuuti donc nañ continuer ensemble rek pour faire xam ne lan la gën a mën a taxa tax taxawoo yenn yi di féliciter di encourager aussi ñëpp ñoo xam ne ñu yëngu yëngu ci santé di masser une fois de plus les familles merci beaucoup